yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da di abonné ci As-Samadiyya TV waaye bu leen fàttee laal kolos de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot illa sal judi wal muna wal jamali malikal

kon de asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi siifur télévision bu mag bi di sama samadiyya jotaay bi Serigne Habiboulahi Mbacke moom sama dal faadal fekk si itam ci jotaay bi koo xam ne it seede la rek ci jéego yi mu doon dox si muy Serigne Mamour Mbacke moom sëñ Mourou Bousso Dieng jiite kuréel gu mag gi di Touba ci kanam seen jotaay bi it sababu du rek wane ne. barab bi barabu sëñ Tuubaa la jumtukaay bi sëñ Tuubaa la itam ñëw di ko seede si ak di ko seet rek jumtukaay bi sëñ Tuubaa la boo xam ne daal bëggut kenn di fi ñëw di joxe dara ci loo xam ne sëñ Tuubaa kon liggéey sëñ Tuubaa mu yëmu ci di ko soññee waaye kenn mënu ko ca waaye itam bokkoon na ci li waraloon jotaay mbeeg sëñ Abibu tey jii mooy xamal ko ne ko jumtukaay bi de Samadiyya jumtukaay bi sëñ Tuubaa la jumtukaay bi Tuubaa ci kanam la itam yegg ca nga ñaan ca waaye itam xamal ne barab la boo xam ne daal lay suñu yitte mooy lépp lu waa Touba ci kanam di yëngu ak lépp loo xam ne rek nit a ko ci yëngu te mu tàmbalee ci sëñ bi yam ci sëñ bi rek loole moom jum barab bi loolu loolu rek ko tax a jóg bi ñuy ñëw ci bunt bi sax ci lañ dajeek président Touba ci kanam ñu ñëw seetsi ko ci lañ dajeek président Touba ci kanam te fekk booba it mën naa ne asamadiya sëriñ bi daa ñëwoon di di maanaam di ko fejjali na ko rek jumtukaayu sëñ Touba te ñëw fekk président Touba ci kanam ci bunt bi sëriñ sëriñ Touba itam di sëñ Mamour Mbacke mu sëñ Mourou Bousso ko loolu seede la ci rek moom kon nag barab baa ngi nii Mbacke nga def ci ñaan mooy li waaye tamit taalibe yëpp xam ne jumtukaay sëñ Tuubaa la buñ ci yem waaye nañ ca jàpp ndax ku bàyyi lenn lu du sëñ bi boole woo ko ca tàmbale sëñ bi yem ci sëñ bi itam képp ku bokk sëñ bi lépp looy def xamal ne barab bi sa barab la ñii publicité nañuy ñëw sponsor yi nañuy ñëw sëñ bi nag moom laajut dara waaye nag ku ñëw ci barab bi gis ne barabu liggéeyukaay la ñii fi nekk courant bi dañ koy fay internet bi ñi fiy liggéey itam ay taalibe sëñ Tuubaa lañ yoo xam ne seen i kër lañ jëm même bu sëñ bi laajut dara itam ñi fiy ñëw nañ xam ne lu fi waay di def itam sëñ Tuubaa lii maa koy wax sa waaye moom te it nit du fi ñëw mukk itam ngir sëñ Tuubaa muy soxla muy xaar ci yow dara sa sañoon lépp moo koy féetewal boppam waaye loolu mat naa xamalaale mbokki taalibe itam waaye daal képp ku am mag mu àndoon ak sëriñ ñu war koo jàngale war ñu war koo xamle barab bi looloo ko tax kon nag loolu sëñ bi la sëñ bi doon feddali bëggoon nga teew ci ñaan ci barab bi waaye xam ne daal jumtukaay Touba ci kanam jumtukaay sëñ Touba la barab bi itam jumtukaay bi sëñ Touba la kon jumtukaay bi ci jumtukaay Touba ci kanam ci la bokk kon sëriñ bi daa mel ne kon sëñ Mamor mi nga xam ne mooy président Touba ci kanam nga xam ne seedale ci jéego yi moom lañ jox kàddu gi rek kon sëriñ bi kon bisimilah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi siyaare mbokki jullit yëpp waaye di siyaare bu baax a baax waa Al Samadiyya TV di ko jaar jaarale ci seen kilifa sëñ Abdou Samad moom sëriñ Chouaïb ci tur ci turu sëñ Abibou Mbacké ak ci turu Touba ci kanam gépp ak suñ turu bopp rafetlu bu baax a baax nag tànk yi ndax mooy tànk du am solo tànk yi dox mbokk eh, tànk yi ñu bokk liggéey bokk jëmuwaay barab bii di As-Samadiyya ñu koy rafetlu bu baax a baax seen taxawaay taxawaay bu am solo la ñu ngi koy topp bu baax ku ne xam na ne jumtukaayu sëriñ bi la te fi ñu toll ci jamono. dañoo jumtuwaay teel dafa bokk jumtukaay yi nga xam ne bokk na ci gën a tasaare mbir moo xam safaan la moo xam lu yiw la kon damaa jàpp ne mbooleem nit ñi ñëpp war nañ am télé ak rajo ñu gën mën a tasaare lu baax ni nga xam ne noonu la tasaare lu bon bu ko defee mën a nekk contrecarré eh, jëf ju mel noonu Touba Ca mu nag mi ngi rafetlu bu baax a baax sëñ bi jëf ji mu jëf mu jëf ju rëy jëf ju am solo joo xam ne nag yàgg na ko jëf njëkkut tey ndax ni ko sëñ Babacar loo waxee rek eh, li mu joxe tey jii eh, bëreegul ñu ko joxe joxe na téeméeri tonne ciment naka noonu it ubbi bunt yi As-Samadiyya ngir Touba Ca Kanam nga xam ne moom Touba Ca Kanam boppam la sëñ Abdou Samad ku ko xam-xam ne Touba Ca Kanam moom bokk koo kenn liggéey bi naka jekk ko ñor bokk ci ñi mu gën a koy ñun ñu ngi koy tàllal loxo ci tur loxo bu tàlli fas yéene incha allah ak as moom it ñu ñu fas ko ne di déglu ndigalam fas yéene di ko euh, wax lépp loo xam ne liggéey bi ñu ngi koy naal di ko nar mu xam ne liggéey boppam la kon daal ñoo ngi wom mbokk jullit yëpp ñu gën a farlu ci seetaan As-Samadiyya ndax xëy na bu fekkee ne jotoo ko seetaan mën nga bañ a xam bu baax seen programme waaye programme bi am solo la def ci wàllu diine ji ci wàllu yoonu murit ci wàllu magi Sëriñ tubaay ci wàllu jëmale kanam dëkk bi kon ñoo ngi woo mbokki jullit yëpp ñu gën a abonné ci As-Samadiyya di ko topp te yàlla rek tax ak Sëriñ Tuubaa ndax télép Sëriñ Tuubaa la télép Sëriñ Muntaxa télép télép Tuubaa ci kanam moom ci wàllu boppam jël na engagement ngir fas yéene jàppalante ak télé bi ñu am collaboration bu dëgër ci wàll yëpp lépp lu ñu defar incha allah dañu fas yéene woo leen ñu jàpp jàppalante ci bu ko defee mbokki julli yëpp mën ca jot mbokki tamit mën ca jot kon daal ñu ngi rafetlu bu baax ci am mbégte xëy na sax ñun dañu dañ ci et moo ñu boole waaye dañ doon jàll rek fa dajeeg sëñ bi di dugg te sëñ bi di suñu kilifa suñu njiit eh, te wax dëgg yàlla tam ma rek sëkk nag waaye daal di delluwaat di yeeslaat suñu rafetlu taxawaay si samat bu baax a baax a baax ci dëkk bi ci Touba Ca Kanam ak ci lu mu mën a doon wax dëgg yàlla ñoo ngi koy topp bu baax a baax a baax donc ñoo ngi koy ñaanal wér yàlla may ko jàmm ak tawfeex ba li mu bëgg lépp ci yoon Sëriñ Tuubaa defal ko ko xam nañ ni mooy yéeneem naka noonu tamit ñoo ngi koy def ci sa bi nga xam mooy suñu boobu boobu taxawaay rek la am fas yéene dëkk jëm kanam ñëpp yi delluwaat ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa rek lañ ñor ñoom lu Sëriñ Tuubaa ñorul leen kon ñun tam yàlla yàlla def ñu roy ci ñoom tey bu ñu royee ci ñoom suñu borom def defal ñu ci ak dëppoo ba ñu man a ànd ñun ñëpp liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci ginnaaw Sëriñ Muntaxa taxaam nga xam ne mooy jiite yoon wépp te ma ko sakk moom it kon daal ñoo ngi siyaar ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte bu baax a baax ci teewaay bi di tàllal loxo Touba Ca Kanam bi bis eh, asamadiya ci tur Touba Ca Kanam fas yéene daal li ma ko waxee woon léegi rek jàppalante gi moom tàmbali na tey te incha allah rabbi dootu dagg sama yàlla ñoo ngi siyaare mbokk jullit yëpp siyaare ba sëñ Mouhamed mii tamit sama jàmb <laughs> di ko siyaare bu baax a baax a baax eh, ak mbokk jullit yépp rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibi yëpp ñu nuyu tàmbali ne bi sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Mountakha di ko ñaanal yàlla àggal yéeneem yàggal ko fi yàggal yëpp te ànd ko moom di nuyu suñu kilifa bopp suñu lépp monsieur Abdou Samad monsieur Amson yi yàlla na ko yàlla yàggal te may ko fan gudd ak wér ba yéene jii mu yéene liggéey sëñ Tuubaa ci ci ci ci ci dëkk bii yéene ko yéene ci yoon wi yàlla na ko sama borom àggale te ànd ko moom euh, daanaka amuñu ci wax ndax bi ñu war a wax rek ci mu jëm ci liggéey bi sëñ maam moo rek bi mu waxee waxaal na ma euh, li mu war a wax rek wax na ma ko euh, xëy na nag li ñu lu ñu waxal waxal bu bu bu bu ñu waxee te am du des waaye njabal teraanga moom bu bu ay ko seqee eh, boo xati ko mu pàllax mu gën xëccu ko mu xar eh, kon loolu rek teraanga rek la xanaa sama dijee daal ñuy ñaan yàlla na yàlla na tur wuy borom eh, yàlla na doon kii fi rajo yëpp yàlla na ko yàlla def muy loo xam bànqaas boo xam ne organe presse boo xam ne maanaam bu Sëñ Tuubaa la boo xam ne àdduna yëpp fa at jësiir àgg wala wala wala wala CNN wala RFI wala yëpp yàlla na ko yàlla na ko yeesu daal te yëkkati yal na yal na doon yëkkati lislaam yal na lislaam yëkkati ko ci moom yoonu mu di yëkkati ci moom euh, Sëñ Tuubaa mbir mi gën a yëkkati ko ci moom ndax Sëñ Tuubaa yëkkati ko nappi euh, yàlla a yëkkati ko bi xam si bi jóg na ko ngir yaatal ko daara la euh, way juróom daara la yoroon moom station yi bu yàlla na yàlla yokk leeral yokk ñu yokk tas ñu barkeel yokk yërmande tas ñu barkeel daara la yoroon daara jooju mooy mooy la ba as rek si Abdou Samad di tax di ko xamu ko sax di jàngale ndax man maa topp ay jàngale yu bari ñu ci am ñoo xam ne ñu jàng xam-xam ci biir téere ay nax ak ay yu bari bari ñu ko jàng ci biir maa ko dégg ñu ngi ba boole boole njëkk yeeg du bari maa ko waaw bàyyi naa ko ci kawee bàyyi naa bàyyi naa ko xel yu bari bari bari kon nag loolu ne fi daara la koo bàyyi xel daal am sa dugub du sànku ndax gisuma lan loo xam ne jàll nañ ko fi tuuru fi jàll xam naa ne tere tere la boo xam ne bàyyi na xel Sëriñ Tuubaa bàyyi na xel waaw mi na xadim yi illa yi maan xadim yi rek kon loolu loolu mooy mooy liggéey bi kon sëñ bi yàlla na ko yàlla àggal yéeneem yéen ñi fi nekk liggéey tamit yàlla na yàlla la fa cet te yàlla musi na ci accident làmmiñ ndax lu ne lu ne lu génn lu ne mën koo jàppaat bu mu si aw làmmiñ bu xasee génn moom ndax ko yàlla dugal daa xat te roqee dafa génn yàlla na doon jàmm bu génnee ci yàlla ngay wax loo xam ne kenn ci nundoo sama borom leen sàmm ñu sëñ bi def ko jàmm sëñ Mouhamed ñu ngi sant baax dëgg gërëm ni ko si moom amoor yi rek moom mooy jëriñu liggéey bi Touba Ca Kanam kon wax na ne sëñ bi wax na ne kon léegi télé bi télé sëñ Touba la Touba Ca Kanam àll Sëriñ Touba la kon lépp lu ñu defati sëñ Mor Ñang mi nga xam yaa fi nekk kon li ñuy lépp lu ñu defati rek dañ la woo bu wisit sàcc yeeg lu ñu war liggéey ji nañ woo sama di mu jàll ko ci te ñaan murid yëpp abonné ci bokk ci ñëpp ànd ak moom di ci liggéey Sëriñ Touba tam lay sëñ bi sëñ bi rek waaw maa ngi yëgulu ñëpp te tey sant sëñ bi sëñ Mbàkke jërëjëf suñu ko seet na gën Babacar jërëjëf loolu sant wax yee tam jotal nga lépp yàlla dafa jàmm هل يدار للذي